ndax Cheikh Ibrahima Fall euh, li muy jàngale benn ordre la c'est un mais ordre la bu bàyyi ko ci yàlla muy am nose bopp euh, pour nga xam ko il faut nga am xam-xam Cheikh Ibrahima Fall itam ñun bëgg nañu am mbooloo yéene nañ ko mbooloo am na mbooloo waaye Cheikh Ibrahima dafa boole quantité ak qualité Seeru fal nak na ngeen xamne ne qualité koy top. Seeru fal nit ko xamne mën ta ñak yalla rek mëna daj Seeru Fall ndax Seeru Fall ma nga ca ginnaw frontière bi tagalé nité ci yalla ak dof ci yalla nit ku nité ci yalla du mëna dok aliénation yi aliénation yi mooy jëng yittee nit bam bok ci nit ñi ami bok ami nawlé am sa bopp am say bëgg-bëgg am yoo tànn yooyu kum ne ci yow yàlla moomagu la ndax bala ngaa dem ci yàlla tàggu yooyu la moom ay buum la yu la téye boo gisee sëñ Tuubaa wax ne bi ma daggee jéng yooyu laa daje ngëneel ba gën ñëpp lor daal di may dëddu njariñ gane si ma li tax sëñ bi waxe ko noonu mooy buum yooyu jëmbut a dag fa lasta tax tawiil wu soolalil jalil bi xayri xattixin uqubaati yaa nabil loolu la sëñ bi wax doo yegg mukk ci yàlla te dogoo jéngu yooyu moo tax sëñ Tuubaa bi mu ko dogee moo tax mu doon wax ne xat fakka kabla bi ma dogee amaar yi muy aliénation yi yi ma boole woon ci mbooloo mi ba ma ami nawle ami moroom xat ba sa fadla nee na yàlla daal yebal ngëneel mu gàttandu ma ma dajeeg moom dama ginnaaw kii bana ñëpp ngir man demal daje ko dajeeg moom mais nee mu dajeeg man ma gëne ko ñëpp fa dur wala nee na ngëneel lor moom rek la ragal fu ngëneel fenk lor daw moo tax mu indi baatu arfu afa bi conséquence la simultané mooy bi ngëneel fenkee rek lor dafa daw nee na wanaf ujaay nee na njariñ wowuma ko njariñ moom yàllaa ko wax fi mu war a dem gis na ne ñetti was yi tax mu dem daje na ci man mooy des desalié naaw na booleetuma sama bopp ci mel ni ngeneel gane na ma lor daw na ma té leelu rek la njariñ xam nee na bi mu ñetti was yoyu wa naf u jaay nee na njariñ moo ñëwal boppam waaye waxut ne maa ko woo wa naf u jaay la wax motax nit ki tollu fofu nga xamné mëna tuta ñak yalla yàlla safut ci mom lim saf ci ñuko bëgg bayere safut ci mom lim saf ñuko doon wut ab tiitar safut ci mom li saf ci ñuko doon wut nguur saful ci moom lim saf ci ñi bëgg nguur xam na ne moom mar na mar woo xam ne ci yàlla dong la mën a mandee te yàlla du jeex ku mel noonu mooy mooy dajeeg Cheikh kon Cheikh Fall itam du cërub ñëpp cërub ku teey la kuy settantal ku xam ne Cheikh Fall mooy li suñu boroom tabaxe diine xamul ki xam xam na li wax Cheikh Fall soo jotoon tabaxub diine nga dindi raax ba romb peinture ba dindi lépp da dem ci support tabax bi mooy keno yi am feer yi loole mooy Cheikh Fall boo ko tojee diine mab waxuma la l'islam waxuma la mouridisme diine laa wax keno yan ko tabaxee boo deman ba yegg ca boo ko màbbee yooye ñooy Cheikh Fall diine dina màbb diine tabaxuñ ko ci dara lu dul ndigal tabaxuñ diine ci dara lu dul mucc ci seytaane ndax pexem seytaane moo jur diine pexem seytaane doo nga jur diine diine ngi tàmbalee ci ba yàlla waxee ne malaaka yi sujjootal leen aadama baat baatum ndigal bi njëkk dugg ci diine nga xam ne mooy birig bi ci njëkk teg mooy sunu borom ba mu ne wis xaar rabbuka lil malaa'ikati usjudu li aadama sujjootal leen kon ñëpp def nañ li yàlla wax illa iblisa ba mu des iblis la ko tere sujjóot mooy mbooy gi la malaaka ya def mooy tool bi ñëpp nañu illa iblisa kon nyepu sujjóot ñoo ne ci tool bi ki sujjóotul moo créé mbooy gi kon mbooy gi lan moo ko délimité mooy lañ waxal iblis abba dafa bañ wastakbara dafa rëy wa kaane min al kaafiriin dafa weddi looloo tax Cheikh Ibra daa wax ne ana lu wolof wax doom ñu ne ko Fall lu mu wax mu ne ah dañu ne weñ gaa nga bañe ca mbànjaxaan gi ñu ne waaw mu ne waaw ku ko bëgg a jubbanti nooy def ñu ne ah Fall xanaa dë dëngalaat ko rek ca kaw ba mu jëlaat yoon wi mu ne ah loolu da ko yokkub dëng-dëng dëngal na ci suuf nga dëngalaat ci kaw nee na loolu da ko yokku dëng-dëng ñu ne ko lan moo ciy pexe mu ne xawma ci lu gën dem fa mu dëngee woon nga jubbanti ko dem fa mu dëngee nga jubbanti ko nag mooy abba wastakbara wa kaana minal kaafiriin abba Cheikh Rafal ne kon nañ delloo si weñ gi fa mu nekkan anul iblis def ñu ne dafa bañ mu ne naa indi nungu moo tax Baye Fall nungu wastakbara ñu ne dafa rëy mu ne naa indi woyof moo tax Baye Fall woyof wa kaana minal kaafiriin dafa weddi mu ne naa indi wóolu far magum ngëm Baay Faal wóoloo tax mu dugg ci ngir mi de du ngir moo xam ne ku mu neex dugg ci ndax ku bëgg àjjana doo ci dugg ku rawal sawara ragal sawara doo ci dugg ku bëgg yàlla rek a ci dugg ngirum Baay Faal ku bëgg àjjana du ci dugg ku ragal sawara du ci dugg ku bëgg yàlla rek a ci dugg loolu moo mat a xàmmee ndax bëgg àjjana ragal sawara bëgg yàlla bokkuñu bokkuñu de sëñ bamba bu muy def rëdd woowee xam nga rëdd wi dafa am dafa am lu ko jiitu ñu bari naa sëñ mas naa rëddu rëdd rek waaye tëb sëñ bi du tëb rek def rëdd bi mu doon waxtaan noonu di wax ci Cheikh Ibra Fall noonu mu toll ak ni mel xam nga sëñ Tuubaa day gis xol li muy wax xóotee na baati na na ba ñëpp attanuñ ko am na ñu koy gëm am na ñoo xam na itam li mu ésotérique ba mu ëpp xëy na seen xol dana dana maas tuuti te sëñ bi xam na ne lim mu leen di nettali ci Cheikh fal ñoom buñ ci amee leen lu ñuy nattale dañuy yàqule te loolu kenn du ko def ci kanam sëñ Touba kenn du fa yàqule sëñ Touba daal dagg foofu wax wax ji daal dugg ci biir kees gi bi mu duggee ci kees gi nag la daldi def aw rëdd daal yónnee nag ci mag ñi nekkoon foofu ci biti tey dégg waxtaan wi ñoom ñëpp ñu fekk ko ci kees ga ca des ku ñëw dugg nag bu ñu la nee sëñ bi kat moo fi def rëdd yi waaye nee na ku ko jéggi fekk ko ci biir kenn mënu laa ramu kenn du jéggi kuñ ko wax rek nga toog di xaar leneen digal fekk na ndaw dem na ci Cheikh Fall woowee ko ne ko sëñ Bamba woo Cheikh Fall booba jamono ci njaarim yegg na foo xam ne buy jóg di dem day woo yaaram mbay mu dend ak moom bu dem da ko naan yaaram mbay bu yox del déglu yaaram mbay mu ko bu waxee ba nuppi nga nett li ma lim wax yaaram mbay ba xam nga ne sëñ bàmba bu wax duma ko dégg nee na bu wax riir mi asamaan di riir di ko joxanteeg suuf loola may tere dégg waaye yow di ko dégg nga nga xam ne bu jubee sëñ bi li koy xamal ne yëgsi na ci sëñ bi mooy ay cëram dañuy bañ mu mu mel ni ko lafañ bu boobaa sëñ jaaram bay ñoo koy jàppale yëgsi indi ko bi mu ñëwee nag ba yëgsi ci rëdd wi wi sëñ bi rëdd te ne ku ko jéggi fekk ko ci biir kenn mënta dox sa diggante ak sawara foofee biñ ko ko waxee moom mu mu daal di jéggi rëdd wi daal di ah sëñ bàmba na dëgg gëm naa li mu wax daal di jéggi rëdd sëñ bi daal di génn nag daal di dajeeg moom nag li muy wax ak moom itam ña seen xol doon xaw a am feebar ba muy wax ak ñoom te Cheikh Ibra Fall newu fa ñu ngi koy dégg ndax ñoom jéggiwuñu rëdd wi loolu la leen sëñ bi bëgg na wan xam nga sëñ bi day jàngale mu ne mu ne ko Ibra mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa dañ laa waxut li wax ci rëdd wi yaaram bay daal koy wax mu ne ko ah kañ Mbàkke wax nañ ma ko kañ waaye man sëñ Bamba bëgguma àjjana ragaluma sawara man yow rek laa bëgg foo nekk rek ma fekk la loola moo daal di dem faj xoli ñee sëñ Tuubaa doon waxal ci Cheikh Ibra Fall ni ndax sëñ bi da leen ko doon nettali nettali bi des rëy na ci ñoom mu wan leen ko bëgg euh, sëñ tubaa gi la defan muy yitteem yitte bu dee benn faju Cheikh Ibra Fall li mu wuteeg jaam ñi mooy li sëñ Tuubaa wuteeg jaam ñi mooy lan daa amul ñaari bëgg-bëgg ku dul moom doo sëñ bi ci axe boobu am nga ay bëgg-bëgg yoo làq ci sa biir moom amul bëgg-bëgg bu mu làq ci biiram sëñ bi rek la bëgg bëgg bëgg gi mu ko bëgg moo tax moo tax ba li mu ci am kenn mënu ko am ba tax na ba ko sëñ bay yebal ndarit baat boobee mu ko waxoon ana Ibra Fall wax li nga bëgg sa borom defal la ko da ko ne Mbàkke defal ma bis bu ne ma di la gën bëgg bis bu ne ma di la gën bëgg kon xam nga ne Cheikh Rofal su doon bëgg na leneen muy ngërëmal yàlla ak ngërëmal sëñ bi am na ko ba nuppi ku am loola ba nuppi ñu lay waxal li nga bëgg booba bu dencen beneen bëgg-bëgg dina ko wax mun daal koy xamal ne ko man la ma indi woon fi yow ba tey moom laa gën a bëgg rek muy di la gën a bëgg daa bëggan sëriñ bi ba sëñ Ibnu Amar nee bu sëñ bi masaan yónni ndaw ci ci moom nee na boo ko nee sëñ baa Bàmbaa ma yónni bala ngaa wax liñ la yónni sëñ bi Cheikh Ibra dana wax ne neexal leen ko nee na buñ la neexalee moom at duutoo ne nee na nee na sëñ bi mas na ma yónni ne ma ibnu dama lool ma Ibra Fall nee na ma daw ndax booba njaarim ku ne ngërëmal sëñ Tuubaa rek nga la fi bàyyi te ci ndigal nga koy amee te lii ma sëñ bi sant ndigal la nee na ma waaye la desit ma lakale ko ci moy xamna ne neexal bu reeng may xaar famu jëm neena ma daal di daw neena na bi ma yëgsee ci kanam Baye Cheikh neena nak na Baye Cheikh Ibra ku rafet la ku afable nee nit koo xam ne cër yi daa yaru kum dajal nga yaru ken mën ta rew ci kanam Cheikh Ibra ndax mom yar yar bi muy yor moy yar di ci dess Cheikh Ibra da wax ne adom ah, mana waré a waare ku la gis ko gën Cheikh Ibra boko gisé rek waru mom bi mu ñëwee nee na daal di sukk ci kanam ne ko bàyyi Cheikh Ibrahima de sëñ bàmbaala woolu nee na dafa fudd daal ne a ah, doom neexal leen im na na ñu may xëpp alal di ma xëppi sir nee na lu ne ñu neexal nee na ba ba ñooña dal nee na Cheikh Fall ne ma ah waaw im na nga ne lan mu ne sëñ Bamba day moo lay woolu Fall moo ne nga wuy si ko nee na Cheikh Fall daal ne ana yaaram bay nee na sëñ yaaram bay ne ko Fall mu ne ko jot mag jot li mag satala nee na sëñ Ndiar mbay jottali ko satala gi nee na Fall daal di jàpp nee na bi mu jàppee ba nuppi daal ne yaram mbay mu ne ko faal mu ne ko dégg naa tur woo xam ne góor gu ko dégg da ngaa war a njàpp nee na di jóg mbooloo mi topp ko ñuy sikkar nee na mu nee na muy dox lu tuuti mu génn nee am sëñ Cheikh Fall mel dafa namm kaay wuy sañ bamba ji ne waaw ana im ne na ginnaaw gone laa woon man maa ngi ca ginnaaw ne na ma daw nee na ma dawaat daal di ñëw mu ne waaw im nga ne lan ma ne ko sëñ bamba de moo la woolu faal nee mu yeggaat suuf ne ana yaaram bay nee na sëñ yaaram bay ñëw mën ne ko jot mag sata la na mu jox ko satala gi Cheikh Ibra Fall daal di jàppaat ba set daal na ko yaaram mbay mu ne ko faal mën ne ko dégg naa tur woo xam ne góor gu ko dégg da ngaa war a yeesal sa njàpp nee na daal di jógaat ñu doxati nee na doxé touti rek mu nam kay wuy señ bamba ji dal ni ana imna na imna ñew mu ne ko lo wax mu waxat ko lim waxon mu ne ana yaram bay mu joxat ko satale gi mu japp nee ñu dem nee bi japp mi tegaloo nak ba ba mu upp nee dafa ne si bay mu ne ko faal mu ne ko kay wuy señ bamba ci ci ci nopp goor mu ne mu ne ko na ci sangu farata ci moom foofu la toll ci bëgg sëriñ bi ak wormaal ko ak dégg ko nag ak nag xam teggin yàlla kuy ku dul Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall moo la gën a xam teggin yàlla xam nga nit ñi dañoo war a jàng Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra Fall li mu indi ci diine mi ngi fi dañ koo xamul woon mooy subordination mën a topp sa kilifa Cheikh Ibra Fall daa toog ci wetu sëñ Touba comme dënn bi daa tàmmoon sikar ndax ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaanal muridu قد قلت ذلك بلا wala ubali أبالي بذوي الإنكار yooye ko sëñ bi waxee loolee mu wax ci sëñ Cheikh Ibra Fall ko bàyyi tàmm gim tam sikkar jikk ba ci àgg mu toog ci kanam sëñ Tuubaa daal ne laa ilaha illallah ñetti yoon waaye da koo tàmm bi mu ko waxee ñetti yoon nag xel mi del si mu daal di tiit nag daal di waaf daal ne na seextaal mu ne ko faal mu ne ko miraas leen ma dem leen ca kër ga lu fa ne ngeen indil ma ko daal ni ko sëñ bamba tuubal naa la tudduma yàlla fi yow dama ko doon nooyee rek sëñ bamba tuubal naa la tudduma yàlla fi yow dama ko doon nooy xoolal tudd kilifa sa kilifa ci sa ganam kilifa weddi sa kilifa la Seeru Faal dafa xam ne yàllaay kilifa ak sëñ bi waaye moom yàlla la ko booleel te boole gi ko yàlla booleek moom moo tax mu war a yem ci moom moo tax mu ne tudd kilifa sa kilifa ci sa kanam kilifa loola mooy weddi kilifteef gi dégg nga ndax mas nay xibaar ak jébbuloom ba wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo moom raasi ko jox ko seen pexe looloo tax moom ci sëñ tubaa la tàmbalee ci sëñ tubaa yem loolu nag mooy li àddina bi war a jàng ndax ordre boobu mu créé ordre bi ba tey Cheikh Ibra nekk chantre chantre jàmm centre bëgg yàlla centre liggéey mais liggéeyal lislaam ndax capital bu lislaam moom sañ cee def ci lislaam te du ko def ci lu dul lislaam loolu Cheikh Ibra moo ko créé moo ko créé kër Sëñ Tuuba ba nu demee Mbàkke Kajoor fekkan na daara ja di sóor moo njëkk a yalwaani di woor ñu di ko reedita yalwaani di woor mooy moom daara di sóor mooy Sëñ yoroon na njël te ku yor njël doo mën a dëkk ci jàkk te Cheikh Ibra Fall nee alxuraan yàlla deful ci téere bi moom laa jàng xam ne loxob Sëñ Tuubaa bu sell bii boo ko yàlla bind yorub goppto wa fi ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsiroon nee na ma xam ne kii ku ko bàyyi ci jàkka ji yaa liggéeyal yàlla nee na ma xam ne ko li ko war a génne jàkka ji ku ko def dem ko ba ci jàkka ji kon naa ko wutali njël moom mu ne ci jàkka ji loola mu dégg nag ba dem di yalwaani mooy di wuti di woor te du fi jële moo baril kër sëñ Tuubaa alal